yéeme lool ci taxaw gi ma taxaw te yàlla ni yaa ayyuha alladina amanu la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi ma taxaw war a yëkkati kaddu lu jiitu may def dara sëriñ Abdoulaye maa ngi sàkku ndigal lu wér bu lu taxawaay bi ndigal ak ndigaale ak ndugal mu ni ma ndigal soo mënee defal boo mënul defal jàmm lekk la cay fekk bi kaddu gi ñëwee sama bàyyi sëriñ Cheikh Kandji Ndiéguène daf ma ni kaddu kër Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène na dugg ci sa biir kàddu doomi soxna yi fi teew yépp su ma leen doon lim fajar jot maag Chérifa denn ay dara maa ngi lay ziyaar Serigne Ibrahima Faye waaye Serigne Cheikh Touré moom Serigne Saliou Mbacké mu Serigne mu Serigne Saliou Touré mu Serigne Saliou Mbacké mu Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi nii waaye li may bëgg wax seede rek lay doon sëriñ Cheikh ci sa rakk ji di sëriñ Alpha waaye li nga doon daf ñu dugg ba ñu suur ma ngi wax Chérif sa waxtaan wi yàllaa na ndax ku ko bind dafa yàllaa sa waxtaan wi sëriñ Cheikh yàllaa ndax ku ko bind dafa yàllaa kan moo ko bind borom qaalu maa lillahi waliyan aw mu'tarifun ilmuna shaytaana kooku mooy tan mooy sa maam Sëriñ Mor Njaay Daabay qaalu maa lillahi waliyan aw mu'tarifun ilmuna shaytaana sa maam waaye du ma ci sori ndax li tax du ma sori mooy mooy dana laal xol yi dana laal xol yi te sa rakk jii di sëriñ am li waral ñi daje mënu leen a mënu leen a la mënu la teg mbooloo mi fi mu bëgg mooy da leble sëriñ Alpha da leble nit ñi ñëwuñu pour lebal la dañu ñëw pour avance la ci bor bi ñu la yore sëriñ Alpha Ndiaye da leble li nga leble nag nit ñi dañu ñëw pour avance ci bor bi xam nga lu ñuy def yëritu nii wa yëritu min ali yaquba wa jaalhu rabbi radiyan donnu nga sa kër baay donnu nga sa kër maam dox nga doxin wi bi alfa sa guddeeg bëccëg yaa ngi wuy ji nit ñi sa guddeeg bëccëg yaa ngi wax lu baax yaa ngi def lu baax bayaal bi xatul fii xatul am na ko woote lu gën a tuuti lii te feesul am déet dama ni wallahu shahidun ala ma bayaal bi xatul tant lañ lu gën a tuuti lii te feesul yaa ni mel parce yaa ko lebal nit ñi te sër yàlla foo mën a dem li ma la nawe mooy foo mën a dem di nga wane ni Serigne Mor Ndiaye daa sama maam foo mën a dem lu mbooloo rëy rëy boo génnee daañu xam ne kii doomu Serigne Bassirou Ndiaye la ci sa ci sa gëm sa bopp nit su gëmul boppam bu la nee gëm na la dalay nax laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi lii may wax doomi soxla yi koo ko jox mën na ko seede ci yow tey kër yëpp ñu ngi ci tànt bi kër yëpp ñu ngi ci tànt bi dama ni doom ji tiitaroo baayam doom ju bàyyam di tiitaroo ak doom di tiital bàyyam a fi ne bii doom day tiitaroo bàyyam di way sama baay waaye doxul doxinu baay bii doom bàyyam da koy tiitaroo ndax bi sa baay di dund nga taxaw ni ko dama laa bëgg a sant lu tax nga bëgg a sant sa baay mooy jéppi sa baay sa baay jéppiwu la su la jéppi woo la jox ndigal nga sant ko te dama ne doom bu màggee gërëm mbaa xalab la in shakartum la azidannakum te yàlla nee na ko sant ma dolli la kon sëriñ Alpha boo amee taxawaay ci nit ñi am yitte ci nit ñi di wuy ji nit ñi fu ñu la fekk ngay dox lu baax soo wootee dina xat yii may bëgg a wax ku mu dal bul mere kenn si jikko la ko yóbbi ku dëkk ci dëkk xëy woote te kenn wuy siwu la bul mere kenn da nga daawul wuy ji ku dul wuy ji kenn du la wuy ji ku dëkk ci dëkk bari wërsëg kenn du jaax la ba seeti la bul mere kenn da nga dul joxe ku dul joxe kenn du la seeti ku dëkk ci dëkk te lu fa réer ñu xalaat la ca ba ba muy feeñ da ngaa yàgg yi yëfi jàmbur ku yàgg jël yëfi jàmbur lu réer xel yi dem ci yow ku dëkk ci dëkk xëy tukki te kenn nammu la sa jikkoo la ko yóbbi tukki ñetti ak ñëw te naan gars yi pourtant taa nekkuma fi te kenn xamul ni nekkoo fi sa jikkoo la ko yóbbi kon sëriñ Alpha dama ni sa bis bii sa kilifa yii toog da ngaa jëflanteeg nit ñi nit ñi kenn moomu leen de nit ñi kenn moomu leen sari alpha da ngaa jox sa bopp nit ñi nit ñi mënuñu lu dul lii ku daj lu ne te dajale dara dem ba dajatoo tey dajale am na koo dajal gëmoo kudul sa maam sëriñ sëñ moom day dagaay te gëm nga lu gëmu nag gëm nga lu gëmu dox nga dox wu doxu li des nag mooy ñun ñi fi teew ñëpp ñoo ngi lay ndokkee moo leen doomi soxna bu rajo bi àggul ci moom mi ngi lay wax ndokkale ci bis bi am solo mooy sëriñ Cheikh wax na ko damay wax ni Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul Mustafa xayrul xadim bàyyi basa baabi maa mi dana Cheikh Mbakke taaloo Muhammadu jaatloo Muhammadu li mu wax doy na fa kullu wértin yuridal murida بحضرة الله ولن يحيدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى a التجاني أو لسواهما من الأخطاب إذ كلهم قطعا على الصلاة kon bu ay nit jógee di xeex tariixa yi yow nga jóg dajale doomi soxla yëpp dama ni ñun ñëpp di xeex dañuy ànd te am na ñoo xam ne seen mission yi yëpp mooy li mag ñi samp na seen pikku ku jàng te tarbiya wuñu la doo dem xam nga looy mën alif laam miim yàlla xam lim ci nam zalika lii kitaabu téere la laa rey ba dee sëg fii gi ci moom hudam li mu takki na way ragal yàlla yi ku jàng xam ko waaye la muy saf ku amul kilifa doo ko xam la loolu di saf ku amul kilifa doo ko xam qultu lahum idan annana dama ni loolu di saf ko amul kilifa doo ko xam kon la am solo te am solo mooy kilif téef mooy waral nga xam li muy saf waxoon naa fii daaw yàlla naa ko fi yàgg a wax ku yóbbu dalal sa xel samp këru mag ñi du tas ku ko bëgg a tas këru mag ñi du tas ndax loo fekkewul nañu ko sampe mënoo koo tas waxoon naa fii daaw ni ran gi ran jëm Tuuba noppal ci rang gi wala nga noppi ci rang gi lu jiitu rang gi di rang borom rang gi defar gi ba rang gi di rang ida katabtu itam sa arsul baaqi wa sabbahati malaykatu baaqi dama ni kenn la fexe ba nit du sujjootal sëriñ Alfa jox ko ci tus mënoo ñu ci dara sëriñ day xeewi ba ko dalee wax ba tey dañu am bi ñuy siyaare ji Tiwaawan am quatre-vingt-deux cas ñu dem ba ci yoon bi sama benn xarit bu ma jàngaloo ci tool bi ci Bamba Suur mu ne ma gis naa sa oto ay car topp la xaw ma mbay gerte la xaw ma as waaye dafa woon naa ne seen niveau ëpp na yi xaw lu ma koy tontu ma ne ko li la naqari sa maam dafa fi luñ koy rangee rek comme sa maam dafa fi luñ koy rangee nag ñu fi seen maam def luñ leen rangee daal leen rek te daal la li la teg coono nag mooy sa baay daa àbb kër ci tali bi te comme ci tali bi na ko àbb fu ndey fu nu jaay nit ñi dara romb di yàq diine si ngaa yow la ñu wóolu doo ci mën tus kon li ñu war mooy lii nga def wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñu ànd ñun ñëpp joxante loxo xol ñu ànd ñun ñëpp défendre mag ñi ñu ànd ñun ñëpp liggéeyal coow li coow li coow li l'islam képp fi ne lu dul lii du dara lu dul lii du dara nañu joxante loxoy xol al lil muumini kal réew mii mënu la jag mukk te mag ñi bàyyiwuñu leen xel kenn mënu koo defal fu nu jaar dellu jox mag ñi li ñu moom jàng alquran jàngale ko wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama kon lii ngay def sëriñ Alpha am na see asay mag am seen i ndigal doomi soxna yépp wuy sene ñu ngi lay dokkee monsieur le maire ñu ngi leen delloo nuyoo monsieur le sous-préfet ñu ngi lay nuyu di leen dokkeel